أكرم بذلك الكتاب في هداه والصواب فيه القطواب والجواب من ربنا ذي القدام هو الشفاء mbokki téléspectateur yëpp bàyyi ñu kenn tey jii ñoo ngi en direct fii ci kër Serigne Saliou Mbacké ci waañ bu mag bi waa daayiratu jàmbaari Xelkom féete woon ko mooy ñii nga gis nii ci waañ bi mu mel ne tey jii dañoo nekkoon ci bisub xasaayit bi nga xam ne ci ndigalu seex mun Mountakha Mbacké xalifa général de kullu morit woote woon ko kullu morit di ko def ñun waa kër Serigne Saliou ñu dénkoon ñu organisation bi nga xam ne moom leen amal fii cuisine café zéro degré lépp loo xam ne day xeetu berne te jullit war koo def dinañ ko def fii ci kër Serigne Saliou bu ko defee ñoo ngi ànd ak soxna si di soxna maam bu sa seen di jëwrinu soxnay jàmbaari ko nekk jëwrin si waañ bi ñu di ko laaj rek nan la àndeek mbokki taalibe yi fii si liggéey bi kër Serigne saaliw ci bisub xasaayit bi soxna maam bu sa salaamaaleykum ngi sant waa ji yëpp di ñaanal sëñ Muntaxa taxawaayam gën fee yàgg te wéral ko di ñaanal sëñ Cheikh Saliou yàlla yokk koo taxawa ci kër sëñ Saliou macha allah fii waa jàmbaari ko ñoo fi daje ngir liggéeyal sëriñ Saliou ñun liggéeyal sëriñ Saliou rek moom lañ xam te moom la ñëwal fu mu nekk fu nekk jaral nañu lu nekk wax dëgg yàlla su ma waxoon ne trois jours a ngi nii chaque jour bu ñu xëyee dañuy ñëw si kër gi liñ fi war a def def ko suñ paree ku nekk delloo fa nga nekk dëkk góor yàlla yi fanaan ci waañ wi ñu bëri démb fi lañ fanaan démb daanaka bi ñuy ñibbi guddi na torop lépp ci liggéey bi nga xam ne moom la mun Muntaxa woote murit moom ndigal rek lay déglu te ñun ndigal la ñuy jëfee saa bu ndigal jibee nag xalaatuñ fenn xooluñu fenn fu dul kër Sëriñ Saliou te lu fi nekk tamit dinañ ko jaayante suñ ñàq muy góor ñi muy jigéen ñi ku nekk daal loo man di nga ci jàpp ba taaral bis bi ba ku ñëw ko Serigne Saliou loo bëgg muy xéewlu muy ndox muy kafe muy lépp loo xam ne teraanga la dinañ ko jaayante indi ko ci kër Serigne Saliou ngir yàlla ak jëmmi Serigne Saliou di ñaanal ñëpp koo xam ne lu ci waay def ren su déwénee yàlla nga mën du ko ci barke Serigne Saliou moo ngi mel ne ñoo ngi fii si waañ bi te daanaka bi ñu ñëwee ba léegi gis nañu taxawaayu waañ bi rafet na lool jekk na jaar na yoon ñu dend ak nag jëwriñu soxna yi ak ki nga xam ne mooy coordinateur yu daayira bi ak ki nga xam ne moo jiite waañ bi ñu bëggoon a xam boobu ba nigin si nan leen doxee ci liggéey bi surtout rawatina waa jàmbaari ko ñoom ñi nga xam ne ñoom leen dénk organisation Kër Serigne Saliou Mbacké bu ko defee kon dañuy jox kaddu gi coordinateur bi mu sànni ci quelque kaddu après ñu jàllale Baye Galas Kanté après ñu jox soxna Mame Bousso Sène mu tëj en tant que jëwriñu soxna yi mm-hmm. Serigne Bara waaw ñu ngi leen nuyu te di leen te di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu gën fee yàgg di ko ñaanal Serigne Cheikh moom Serigne Saliou suñu borom ko fi tey santaat sunu jëwriñ yi xam ne nii ñoom lañ bokkal liggéey bi buñ nee jëwriñ Serigne Khadim Fall barabu Serigne Saliou na jëwriñ Serigne Saliou Fall Mbattu jëwriñ soxna Mame Boussène jëwriñ soxna day yóbbaale ñëpp ñu teew fii ci gën si journée xasida bi nga xam ne moom la Serigne Mountakha woote te depuis ren muy troisième édition bi nga xam ne nii woote na ko ci ta ñu def ko daaw jéeg def ko daaw defaat ko ren jii te sépp bu ñu déggee ndigal rek xaaruñ ci ku ñu ci soññ ndaxte daayira bi da di waa ñu mag bi jàmbaari xel ko biir kër Serigne Saliou ak daal xel kom daal mag ba barab ba kon yaakaar naa ne lépp ndigal lu tàbbi ci yoonu murid wi rek kër Serigne Saliou ñun ñooy li ko war a taaral moo tax bi ndigal li tàbbee suñu jëmm yi ñu dajalee soxna yi ak góor yàlla yi kenn ku ne lam am ñu ne sas wi lii la sas wi dajale sas yi joxe ko bañ jugee ca loola ñu jaxawaat ay jaayante yoo xam ne nii moom la mbokk taalibe yi jaayante ñu tàbbalaat ko ci liggéey bi ngir bis bi mën a taaru ñi nga xamante ne nii ñëw nañ ci bis bi ngir jàng ci xasida yi ñu mën leen a mën a berneel ndax yoonu murid moom lu luñ mën di woote rek berne moom moom daca moo ca da cay jiitu ndaxte boo ñëwee boo boo tegee bala ngaa jàng war ngaa mën a ndékki soo ndékkee war war nga mën di war nga mën di naan café wa ndox mi war na fa mën di fekk bu heure añ jotee war ngaa mën a añ bu dee reer sax dala faa fekk da ngaa a mën a reer kon nag ndigal li noonu lay doxee moo tax depuis booba léegi ñetti fan a ngi nii saa suñ xëyee ñu ngi ci organisation bi di xool nan la ñuy def bis bi taaru te wax dëgg yàlla liñ liñ nii ñu ngi ciy am njortu baax a baax ñu ngi ciy refeen njortu ndaxte bu ngeen gisee léegi suñ ginnaaw nii gis nañ ne bis bi kenn ku si ne yaa ngi cay dox nañ ca war a doxee ñu ngi ciy góorgóorlu baax te di ci ñaan suñ borom defal ñu kàttan bañ gën a jékku ndigal saa su ndigal li ñëwee rek ñu koy gën a man ndaxte ñun loolu mooy suñu cër ci daara ji te loolu la ñuy sagoo chaque jour te loolu la ñuy ñaan kon nag ñu ngi ñaan dara Serigne Saliou chaque jour saa su ndigal li ñëwee fekk ñu koy gën a jekku mbokki taalibe ñu ko àndal ñi nga xam ne ni ñoo topp suñ ginnaaw jàmbaari Xelkom ak mboolem session yi nga xam ne nii aju na ci ginnaawam ngir ñu ànd bi ñëpp rek session yi ndaxte session yi yaatu la ci daara ji ñu bi te suñu wootee ñu fekk suñu seeg seen doole kon yaakaar naa ne loolu liggéey bi de liggéeyu sëriñ bi la mais nekkul na suñ suñ jàmbaar la wala suñ coobale waaye lu ñu sëriñ bi jagleel la kon loolu dañ ciy sant yàlla baax a baax a baax li waral li waral ñu tëralee ko nii ba mel nii tey mooy biñ déggee ndigali sëriñ Muntaxa ñu xamante ne ndigal li wàccate na suñ kaw te kër Serigne Saliou gii lu fi taaru ñoo ko war a taaral ci lañ woote woote réunion teg mbokki taalibe yi soxna yi ak góor yàlla yëpp ñu wax leen ne ndigal li ndigal li de journée xasida bi wàcc na léegi nan la ñuy def ba kër gi la ci war a def yëpp ñu def ko ci ñu daal ne dañuy dañuy jëli sas ñu waxtaanee ko ndax wax mbooloo waxtaan la waxtaan lañ war a def ñu waxtaanee ko na dañuy joxe sas wi góor 3 3000 jigéen 3000 kenn ku si ne génnew sasam session yi ñu defee noonu am ñoo xam ne sax dañ leen ceeb ñu indi ko biñ na noonu ba sas yëpp ne bi kër sëriñ bi loo fi togg bu bu xéewal jotu xéewal jotee ñëpp fiy daje kon yaakaar naa liñ def nii war na war naa mën a rom fii nii si lañ jaayante waat sasu kenn ku se ne ñu leen sas nañ la ñaari saakuy ceeb ñaari biroy diwlin am na ñoo xam ne nii sas nañ sas sas nañ leen saakuy soble noonu lañ ko doxalee bis bi yegg fii mu yegg tey. mu mel ne xel comme leen joxoon kàddu gi. ñu kontaan lool ci leeral yi rawatina ci daara ji nu muy doxee ak jaayante bi nga xam ne sëñ bi sasoon na ko kullum morit te ñu bokk ci morit yooyu ñu jëfee ko ni nu mu doxee jaayante yëpp ni mu demee mu leeral ko ñu ciy santaat bu baax a baax di ci woon nag bépp mbokki taalibe boo xam ne bëgg nga cee bokk wala am nga yéene jaayante pour yeneen événement yi nga xam ne ndigal la ñu joxe ko lu ci mel ne comme gàmbu màggal xeet googu ba léegi mbokk fii si waañ bi nekkaat ak sunu beneen jëwrin ci biir waañ gi muy sëriñ Mor Ngom di jàmbaar ci liggéey bi jëwrin sëñ Mor ñoo ngi lay nuyu di la ziar. waaw soona Ndeye Galas ñoo ngi lay ziar baax di la fay bu baax a baax di rafetlu site bi nga àndal wax dëgg yàlla buy euh, koo xam ne lépp koo xam ne leeral yoon bi lépp luñ bëgg rek mën na koo def euh, jëwriñ Ndeye Galas euh, li nga laaj mooy question bi mooy liggéey sëriñ bi. dañ ko rafetlu bu baax a baax a baax ginnaaw bi ñu siyaare Cheikh Mountakha Bassirou mi nga xam ne mooy xalifa murit te si yoonu lislaam yëpp ak Serigne Modou Mbenda Fall di xalifa baay Fall kooku ñu ngi koy siyaare bu baax a baax di ko rafetlu bu baax a baax a baax waa jàmbaari Xelcom nag yéenee ànd liggéey Serigne bi ba abadan la ñun nag dañoo mënewut a wax waaye liñ bëgg a wax lépp rek mooy euh, bu jëwriñ ñi ñëwee daal dinañ ko faral leeral ndax dañoo mënewut a wax si rajo waaye li ñu xam ba xam ko mooy daal euh, ginnaaw bi nuyoo suñu jëwriñ suñu Saliou Fall Mbatt euh, la ñu nuyoo tamit euh, suñu jëwriñ suñu Xaadim Fall barabu Serigne Saliou di rafetlu bu baax liggéey bi ak ñi nga xam ne moom lañ ko àndal muy section yi nga xam ne yëpp moom lañ ko àndal ndax liggéey bi liggéey la boo xam ne du liggéey bu ndaw liggéey bu ndaw nag boo xamee ne ñëpp ko bokk la war mooy ñu péncoo ko def sax la nga xam ne mooy waral ba nga xam ne mooy def ba liggéey bi ñoom ndax liggéeyu sëriñ bi nekk na loo xam ne képp koo xam ne yokkat nga rek euh, wax dëgg yàlla bokkoo nga xam ne moo arrangé liggéeyu sëriñ bi dafay laaj njàmbaar day laaj ak ak jom day laaj ak pësteef day laaj tamit ak bëgg ak xam kan mooy sëriñ bi. jërëjëf mbokk taalibe yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñoo ngi waat ak beneen jëwrin muy président d'organisation. daayiratu jàmbaari xelkom di bàyyi Galas Konté mu mel ne dañoo amoon yëg-yëg laaj ko bis bii nga xam ne mooy bisub sëñ Cheikh Mountakha Mbacké di xalifa général de kullum Mouride nan la gisee liggéey bi ak organisation ndax ku xam organisation xam lu métti la kon Baye Galas Konté ñoo ngi leen laaj boobu ni ngeen si nan nga dundee liggéey bi nga xam ne moo nekk fii ci waañ bu mag bi. salaamaaleykum mbokk taalibe ñu ngi leen nuyuwaat di leen siyaare di jël nuyu bi Cheikh Mountakha Bachir di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér. di ñaanal Serigne Cheikh mu Serigne Saliou Mbacke gudd fan ak wér mu yàgg ñoo joxe ndigal ñu yàgg kaa jekk ci barkeb Serigne Saliou di cant bu wér wér bi ñu yoree liggéey organisation jàmbaari xel kom ndax bi ndigal la jógee ba tey amuñu jàmm ngir bëgg bis bi jàkk ndax ku ne xam ne dayoo kër Serigne Saliou ndax kër Serigne mooy kër goo xam ne Touba gépp nag du bis yi mel ni amee ku sa xel nekk si wàllum lekk jàpp naan kër Serigne Saliou la sa xel di dem te ñun loolu jàpp naa xam nañ ko moo tax bi mu jub see rek ñun daf ñu dul dajale suñu addiye muy ku ne 1000 yi nga am ku ne yi nga am xam biir chaque kër Serigne Saliou la ñu togg taal suñu mën a lu mu gàtt gàtt taal nañ fukk juróom yoo xam ne am na leen la war a ñëwaat bëgg nañ daal képp koo xam ne ñëw na kër Serigne Saliou ñun joxal xéewal bu nga xéewloo ba ñeneen ñi nekk ci mbedd man te am nañ am am am am nañu yéene fii ba yeneen at képp koo xam ne mi ngi si jumaa ji sax ñu ñu jox la xéewal ñu ñan na yàlla lool yokk yokk bay téetaali téeméeri mën a si bis bii ndax jàpp naa bisu xasida bi yu ñu def jàpp naa Serigne Saliou li ñu ko defal ndax sëriñ Saliou kat moo moo moo xirtal ndee ndaw ñi sax sa xasida jamono ñu doo doon xool jumaa ji li fi nekk ci ay ay ndaw rek mënoo xam ñaata la te ndaw ñëpp sëriñ Saliou moo xeertas ñoom liggéey kon jàpp naa ne lii sagab sagab sëriñ Saliou la secondement ñun ñu nekk ak këram di fu toggee di yàq di jox nit ñi loolu ab sag la sag bu rey rëy luñu ñun li ñu am xamuñu ko sax dañ ñaan daal mu yokk liggéey bi daal yàlla yokk di wax ne sëriñ Saliou bari na dëre lool waaye koo xam bis bi ñun fii lañ koy defee demuñu fenn ki ñu kër kenn kër sëriñ Saliou lañ am moom lañ koy defee ñun kër gu mënta am fii lañ koy defee kër sëñ Saliou gii moom lañ am moom lañ xam xamuñu feneen lu ñu am tam fii lañ koy ñun lañ am barab sëñ Saliou xel comme kër sëñ Saliou jeex tàkk ñu loolu lañ am te nañ ne nan nekk ba kor ñuy faatu Xat Fall nekk jàmbaari Serigne Saliou ci biir daayiratu jàmbaari xelkom fii ci waañu kër Serigne Saliou waañ bu mag mu mel ne boobu ba ni si ñoo ngi lay gis ci liggéey bi ngay yëngu bëggoon a xam nag ndigalu sëñ Mountakha Mbacké bi di bisub xasaayit bi nan nga ko dundee ak ban yëg-yëg nga am rawatina fii ci waañ bi sëñ Abdou Lahad ñu ngi leen nuyu ku yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare te di leen jox seen wàccuwaay tey jiital ci nuyoo bi xalifatal xam di sëriñ Mountakha Mbacké Bachir di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te may ko ba lépp lu mu naalal liggéeyal maamam ja sëriñ Touba sëriñ Saliou Mbacké sunu borom yoggal ko fi te yokk ko te wéral ko ndaxte mun Mountakha ñaanal ko mu yàgg fi rek mooy li war ndax ak yàggam fi mooy sunu njariñ ci yoonu Serigne Touba bi ndax ja ñi ngi gis na jamono ju nekk mi ñuy gën a feeñalal yoonu islam jamono ju nekk mi ñuy gën a teg ci yoonu islam yitteem du lenn lu dul islaam yitteem du lenn lu dul ndaw ñi ak ja ak ak jullit yi yëpp seen xel di gën a màcc ci yoonu islam yi bëggut kenn wàcc aw yoon li mu bëgg mooy ñëpp tege ci aw yoon tege ci siraatal mustaqima li Serigne Touba bëgg yàlla bëgg ko loolu rek mooy ay ay yitteem su ko defee dañuy gën di yeesalaat sunu kóllëre di yees gën a yeesalaat sunu pas-pas ci liggéey bi di ci jiitalaat jëwriñ Serigne Khadim Fall barabu Serigne Saliou jëwriñ Serigne Saliou Fall mi nga xamante ne mooy jëwriñu waañ yi ñu ànd ko ak jëwriñ yi nga xamante ne ñi ngi ci waañ ñëm ñëpp di bàyyi galas ak jëwriñ Serigne Khadim Passif ak soxna Ndeye Galas ak ñeneen ak ñeneen ak ñëpp ñi ngi ñaan ci barkeb Serigne Saliou di ñaan ci barke bis bii lépp loo xamante ne bii ne moom lañ ci euh, yaakaar te sëriñ bi yaakaar ko ci ba tax mu digle ko yaakaar jooju yàlla bu mu tas ci barke sëriñ Saliou kon yëg-yëg bi ni ci am rek mooy mbégte ak kontaan ak déglu ndigal tey jëfe ndigal ndax am murit loolu rekk la fi la am fu mu toll daa war di déglu ndigal tey jëfe ndigal loolu mooy woon sunu yitte tey ci si bis bi tey ñu ànd ko ak sëriñ bi di ñaan sunu borom defal ñu si tawféex di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool lool ñu ngi ñaanal waa site internet bi nga xam ne ñoom naan àndal mi xel kom 221 TV di ñaan suñu borom gën leen a fal gën a yëkkati seen liggéey ba fépp mu bëgg a àgg ñu àgg fa ci nu yàlla am nañ ci mbégte bu baax a baax ndax lii dafa sedd suñ xol ba mënuñu cee wax waaye nag ñu ngi ñaan saa bu ndigal jógee ñu gën di ko jekk di ko gën a man di ko gën a def loolu daal moom ñu ngi koy sàkku te di ko ñaan te di ko dagaan te di ko xaaraan di ñaan bu baax liggéey bi nga xamante ne bii ne mbokk taali bi ñoo ko jaayante ngir seen i ñaq def ko seen doole ak seen pas-pas ak seen bëgg-bëgg loolu nañ ci daal yàlla nañ ci tase ngërëma Serigne bi barki Serigne Saliou loolu daal bég nañ ci loolu soxna Ndeye di rafet lu baax taxawaay bi Serigne Saliou Fall ñi ngi koy ñaanal tawféex gudd fan wér yàgg ndax taxawaay bi rafet na lool ñu ngi ñaanal mbokk yi fi toog yëpp daal wax dëgg yàlla macha allah. ñoo ngi leen di santaat bu baax a baax di amaan mbégte contentement mu mel ne dañoo deen suñu ñaari jëwriñ yoo xam ne mënuñoo ñàkk wax ci liggéey bi kii ma dendal di Serigne Khadim Cissé di secrétaire général kullu jàmbaari Xelcom bi nekk si waañ bu mag bi keneen kii nag tamit mooy Serigne Momadou di coordinateur u jàmbaari Xelcom xam naa dama la ni laaj depuis boobu bi sëñ bi joxee ndigal bi nan la ñu dundee liggéey bi ba tey jii soo xoolee bis bi wala waañ gi wala nga dugg fii ci kër sëñ Sall da nga xam ne liggéeyu jàmbaari Xelcom jag na kon na dama koy njëkkee si suñu secrétaire général bi Khadim Cissé mu sànni si quelques cadres rek après mu jox Maodo mu joxee si kenn quelques cadres sëñ xaadim ñoo ngi lay ziar. delloo ziar bu wér. yaa ngi am tawfeex. alhamdulilah. asalaamaaleykum mbokki taalibe yëpp ñu leen nuyuwaat di leen ziare. di siyaare mboolem koo xamante ni rek yaa ngi teew si jataay bi di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñ borom yàggal ko fi te wéral ko ba mboolem naa lim naal ci liggéeyub Serigne Touba bi rek suñ borom àggale ko ci lu kawe njort di siyaare waat waa daayiratu jàmbaari Xelkom si njiital sëriñ Khadim Fall jëwriñ Serigne Sall Fall Mbattu di siyaare waat mboolem koo xamante ni rek mooy waa jàmbaari Xelkom ak ñi àndal liggéey bi di rafetlu baax teewaay taxawaay bi ci ëttëb Serigne Saliou. nga xam ne saa su ndigal jógee mu Mountakha rek ak mbooleem loo xamante si njabootu Serigne Saliou gi rek biir kër Serigne Saliou ñoom ñoo ko yor taxawaay bépp seen loxo lay taxaw te chaque année ñu koy doxalee ci anam bu mucc ayib di leen ñaanal suñu borom doolu leen tawféex ba yéen ji am ci liggéey bi rek suñu borom defal ñu li kaway njortu mbooloo mi nag nekk na mbooloo moo xamante ni mbooloo mu takk la àndandoo nekk benn lu dul liggéey Serigne Saliou ñoru leen ñu nekk ay ndaw yoo xamante ni liggéeyal Serigne Saliou rek moo leen jaral lu ne depuis ba njotee jotee ndigal ci mun Mountakha xaaruñ ci kenn xam na ne lépp loo xamante ni lu war kër Serigne Sall rek ñoom la war kon depuis boobaa léegi ñi ngi dajaloo di dajale seen aw ñaq seen i jaayante lépp loolu ma rek ba bis bi jàkk boo xoolee lii fi nekk ci ay mbane yëpp ñoom ñoo ko financé kenn financé wu leen kon loolu lépp ñoo ko jaayante nekk am mbooloo mu takk moo xamante ni dañ leen di ñaanal daal ba saa su ndigal jugatee rek ñu jéeg ko di siyaarawaat uh, sunu cameraman muy Serigne Saliou Maou Rahmatin Khelcom 221 TV ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba lépp lu bëgg ci sit bi rek suñu borom defal ko ci lu kawe njortam ba dem ba yor ay télé tele ñu ngi koy dagaan Serigne Saliou mën na ko te yàlla na ko defal ñu ngi siyaar mboolem koo xam ne mu ngi fi teew rek di rafetlu lu baax kàddu yi ñu ngi tu bu baax. di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi di leen ñaanal sama borom yàlla subhaanahu wa taala ñu yàgg koo fekke gannaa loolu ñu ngi nuyoo bu baax tey sant bu baax nag tey ànd ak di ànd ak suñu jëwriñ yi nga xam ne moom lañ fekk ci daara yi muy jàmbaari Xelkom di rafetlu itam ni ñuy doxee ndax lii daanaka mën nañ ne yomb na yombut ndax mbooloo mu jóg di liggéeyal sëriñ bi jamono ji raar na lool rawatina nag ñoo xam ne dañoo boole seen doole ak seeni xol di ànd liggéeyal sëriñ bi waaw loolu moom dañ ciy sant bu baax a baax a baax a baax di sant nag suñu waa ñi nga xam ne moom lañ bokkal liggéey bi di waa Xayra 2 ndax wax dëgg yàlla ñoom jàpp nañ ci bu baax a baax a baax a baax. waaw ndax laaj métti na lool waaye nee nañ joxe ko gën a métti te kon nag buñ lay joxe itam wax dëgg yàlla fa ñu joxe itam dem ba di fa teew di gis la ngay joxe wax dëgg yàlla loolu rafet la waaw ñi ngi sant nag suñu jëw jëwriñ yi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi ku ci mel ne sëñ Xaadim Saali Fall nga xam ne ñoom daanaka moom mat nañ royuwaay waaw ndax ku leen gis ci taxawaay ci ci liggéey jàmbaar Xelcom ji boo fi ñëwee rek da nga xam ne maanaam lii njiit mate na ko waaw te nag ay nit lañ ay ndaw lañ yaakaar naa ne jara jombuñ war nañoo am loo xamante ni maanaam danaan dema dema dema dem ba maanaam fondation yu bari dañu ci ñee parce que lii pas-pas moo koy maye ndax boo xoolee bi ñu jàppee bis bi yaakaar naa ne boobu la suñuy nelaw jeex ànd nag ne ci bis bi jëmmal ko comme ni ko sëñ Mountakha bëggee te yaakaar naa ku xool fii ci waañ wi xam ne ànd nañ jëfee loola te loola nag li koy maye yaakaar naa ne ñaar dong la génn saw ñaq génn sa poos waaw nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax te tàlli te xam ne yoonu murit moom tàlli moo ko lal di sant ñi nga xam ne ñoo ñuy dekk seeni i micro ak seen i caméra ñii ni ñu seetaan bañ mën ñoo gis ñoo ngi leen di bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla na sa borom yokk matériel bi ñu dem ba am ay talay talay talay talay di ci mën a wane nit ñi ak waa jàmbari xel ko bu baax a baax a baax ñoo leen di sant soxna Ndeye ak sa yi am na solo lool muy kaddu soññee ndax kat moom rôlam rôlub soññee la te yaakaar naa tamit ku ci basé wu euh, di nga nekk si axe bi beneen bi ko def beneen bi ci des mooy jàmbaari xelkom nekk na daare boo xam ne méttiwu la adhéré ndax ku ci bëgg adhéré wu carte membre ngay dagg muy 2000 francs sas bi nga xam ne atum yàlla lañ koy laaj muy 12 mois góor yàlla mille la soxna 10000 la la ca des ay jaayante la yoo xam ne ci ndigal dong la ñuy xaar soit ndigalu sëñ Mountakha Mbacké comme bis bii nga xam ne moom la nekk tey soit ndigalu Serigne Saliou Mbacké ndigalu sëñ Cheikh Saliou Mbacké di bésu yoo xam ne dañoo liyeeg Serigne Saliou Mbacké kon képp ku bëgg bokk ci jàmbaari Xelcom ñoo ngi la siy woo te tëjji nañ suñu porte pour ñëpp bokk si secretaire général baa ngi nii Khadim Cissé moom ngay communiquer soit suñu coordinateur yi. jërëjëfaati kontaan nañ lool macha allah ginnaaw bu ñu dégloo kàddu soññe yooyu nga xam ne moo fi amoon ca ginnaaw mu mel ni ñu dend ak kenn koo xam ne dañ koo séenti waañ bi mu doon jàmbaar lool li ma si gën a yem nag muy kenn ci sëtu Cheikh Ahmadou Bamba yi di sëtu Balla Dior Serigne muy Serigne Cheikh Abdou Mbacke ñu bëggoon laa laaj nag. lan nga gisee liggéey bi fii nii ci waañ bu mag bi ci kër Serigne Saliou ak aussi tamit di la laaj sa daara boobu nga xam ne dañoo féetee Dakar nga xam ne dañuy jaayante ngir lan dem xel xelkom wala di wuyu si ay ndigal yu mel ni bis bii nii kon Cheikh Abdou Mbacké ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la màggal. waaw ahwasanillah mina seytaani waxaadani mën a fexal awtaan baxda alxasbala wa baxda albasmala baxda alhamdala wa baxda alxawqala sa sadil lisani nawi janaani zafil amani wasil baraay asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ziar mbokk taal bi yëpp di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi xalifatul xam ne tariqatil muridiya sëriñ Muntaxa al Basir da ci teg sëriñ am ni Moodu Menda suñu borom yàggal ko fi loolu tam ànd ak wér ba lii ñu naan liggéey ko seen maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ak maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla kattanal leen te mënal leen te oyofal seen lépp waaw lii nag cant la ndax sëriñ Tuubaa dafa yaatu yaatu gi ku tedd ki moo tax mu waral lii yëpp tey ndax it sëñ Muntaxa ci yërmandeem ak bëgg jaam ñi jariñu te xam ne jamono ji mënoo di jël mbir mi di ko fixé ci fenn mooy màggalu Touba dëgg la taw feex la joo xamante ni sëñ Touba ñu ko defal waaye da ci am ay mbir yoo xam ne ay ay ay parox ndono la yoo xamante ne ni dinañ ci gën a mën a jariñu ci lépp loo xamante ne ni njëriñ la ci ku tedd ki ba tax na moom ci baaxam ak oyofam ak lewetam mu organiser lu ci mel ne bisu Samfal bi jàll fan yee yàggut ñu wax pareeguñ ci ñu mu organiser li nga xamante ne nii mooy bisu xasida yi ñun nag lépp lu ñu am ci wàllum ku tedd ki dañ koo ànd ak waa ko Serigne Saliou yi ndax it lépp loo xamante ne nii dañ koy dund wala ñu di ko am wala muy dal ak fekk rek ñun dañoo am cër ci Serigne Saliou boo xamante ni dañu ko fedde féetale nu ko moo tax dañ ciy sant yàlla ak sunu borom dañuy sant yàlla sunu borom mi nga xamee ne moom mooy cërale cër gi mu jël nag bole ko ci Serigne Saliou ñun nag dañoo war a wëlbatikuwaat nekk ci cër googu di Serigne Saliou ndax kenn ku ne méngale ne ne Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni mi sunu wasila day kenn ci Serigne Saliou barax bi mu set see Serigne Saliou ay jamono mu reyal ko ñaar fukki gàtt ak benn loolu comme tey ci ñun loolu nag day taw feex joo xamante ni day day feddali coloré ba tax bu ñun teewee ci kon kër Serigne Saliou li ñu ci war mooy doxin doxin woo xamante ni doxinu taalibe la rawatina nañu teew ci ëtt bi nga xamante ni mooy Matlabul Fawzayni nga xam ne Cheikh Ahmad Serigne ah, Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Saliou fii la yeesalaatee Matlabul Fawzayni ci taalif ak ci li nga xamante ni nii mooy euh, dimbali ñu ci fiq kon loolu day tawfeex ak taysiir daayira bi nag moom mooy nga xam ne mooy lëkkaloo ko Serigne Saliou di jàmbaare Xelkom mu nga xamante ne nii Serigne Saliou Fall Mbatt di jëwrin bi mook Abdoul mook mook mook euh, kii dafa fàtt tur bi sëñ Xaadim Fall waaw waaye nag lépp daanaka tegu ci sëñ Saliou ndax sëñ Saliou la ñëpp gën a miin ba tax na buñ ci fekkee mbokk taalibe yi fii ñu nekk ci waañ bi ñoom képp am sañ-sañu togg fi kon na fu ñu am cër bu ñu am ci Serigne Saliou amul ci moom cër doo nekk ëtt bi ñu ne kon bu la yàlla dogalee nga ñëw fii rek day mel ne barakatul maa yaa xale yeen tasarat musafaxat kuliyati basarat yokkute la nga xamante ne ni axtayta ni man xal ba ansa kullama mada mina duri maxatan sulama ndax yokkute ci bopp mooy nga yëg ci bopp lu yëgutoon ci sëñ Touba te chaque année yaa ngi yëg loo xamante ni yëgoo ko woon kon loolu rek yokkute la bi du fii képp waaye day nekk Ndakaaru incha allah 313 personnes lañ pare woon pour amal ko Serigne Saliou mbokk taalibe yi nag ñu ngi ci di doxi nu ne Dakar fi nekk ci mbokk taalibe yëpp am nañ pas-pas gi am nañ bëgg gi waaye lii day firnde ni ñu gën cee mën ko defee lépp mën a jàpp ne incha ñu ngi tuubal mbokk taalibe yëpp wasalaamu ani tabaxal xuda jërëjëfe borom Touba. ok santaan nañ bu baax mu mel ne kàddu ki nga xam ne ku tedd ki di suñu Serigne Serigne Cheikh Abdou Mbacke Balla joor nekk si waañ bi ànd ak ñun suba ba léegi ba ni ñuy waajee bis bi tamit bàyyi ñu seetaanuñu kon ñoo ngi koy santaat bu baax a baax di gën na jëlaat ci moom exemple di wax dëgg fa yàlla kàddu yi nga xam ne sànnee na ko fi muy kàddu soññee yoo xam ne soññ na mbokki taalibe yëpp nag surtout Cheikh Amadou Bamba moo wàcc nekk ak ñun ci waañ bi mm. kon ñun ñëpp dañoo war a takk futteeku nekk ak moom ànd ak moom ci waañ di santaan bu baax a baax mbir mi moom du du bàllaay sa du lenn mm-hmm. sëriñ Touba ki ko jëfal la xam mm-hmm. sëriñ bi moom xamul bàllaay sa sëriñ bi xamul ki ko jege xamul ki ko sori mm-hmm. kii jëfee ndigali sunu borom yi tey maytu tere sunu borom yi sëriñ Touba loo ko jege-jege ak noom ko mën a doon boo jëfee wutal ndigal bàyyi woo tereem kaka sori nga kon nag li ñu fexe ñun di ci profité mooy amul sëriñ Touba amul mbokk amul xarit kenn ku ci ne la nga baax la bokk ak yow rek boo dem mbokkam nga bu dee taalibe ngay la ngay jëblu ca moom la bokk ak yow nañ fexe bàyyi lépp luy luy àdduna rek te wàññi wax ji te liggéeyal Serigne Touba Serigne Salim nañ wàññi wax wax moo ëpp moo ëpp moo amul moo amul solo buñ ko defee rek wàññi wax ji te te jëfal Serigne Salim rek lépp sot kon yàlla na yàlla mottali sant na leen bu baax yow it yow mi nga xamante ni yaay réalisateur bi ak mbokk taalibe yi nga àndal muy mel ne sëñ Mao ak jëwriñ yi nga xamante ni ñoo yor waxukaay yi wax ba tax mu mën a ñoŋ ba mën a nekk ci internet bi ñu di ko suivre di ci jëlee njam ak tawfeex dañ leen di sant bu baax di leen gënal wasalaamaaleykum tabaxal xuddaa jërëjëf borom Touba. jërëjëf tey yëpp ñoo ngi ci waañ bi ci bisub xasaayit bi di bisub Serigne Mountakha Mbacké fii ci kër Serigne di waañ bu mag bi ñu dénk ko dongab tarbey Serigne Saliou waaye daa mel ne dañoo dend kenn ci dongab tarbey Serigne Saliou muy sëriñ Saliou Fall Mbattu ku ko xam-xam ne organisation kër Serigne Saliou wàllum togg yi ak ndigal gu munti jug moom mii lañ koy jox kon nag mënuñoo ñàkk bañ a jaar ci moom luñ jaar ci jëwriñ ñi war a jaar ci moom mi ngir kat mu leeralal ñi lu waral liggéey boobu lu waral tamit ak bis bi ni mu yaatoo amul ñenn ñu ñu ko dénk ak kër Serigne Sall ak daayira yi nu ñu bëree amul kenn kuñ ko dénk dudul daayiratu jàmbaari Xelcom kon jëwriñ sëñ Saliou Fall Mbattu ñoo ngi lay nuyu di la jaaraat bu baax a baax di ñaan nga leeralal ñu ci question boobu xam nga am ne jot nañ ko fay posé. soxna Ndeye Galas ñoo ngi lay siyaare bu baax tey de loo njukkal Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te soxna nday Euh, ñun day day mel ni cër bii ñu ñu jox ci kër Serigne Saliou mm-hmm. du loo xam ne su ñoo ko sakku waaye mbir la moo xam ne Serigne bi rek moo ñu ko dimbalee jox ñu ko mm-hmm. ndax doon nañ ci dara wér nañu ne mm-hmm. Serigne bi moo ko moom tey tey jii bu ko sakku woon it boppam dañ koy jëlaat waaye nag wér nañu yar gi mu ci boppam ak dimbali gi mu ci boppam moo waral kat mu jël ñu liggéey bii dénk ko ñu fas yéene kaa doxal kem kattanam ndax ñun nañ ci dara yëf yi daanaka dañuy woote rek waaye Serigne bi mooy doxal yëf yi. kon soxna Ndeye ci loolu foofu daal lañ mën a teg suñu tànk ci question boobu nga ma laaj. waaw ndeysaan ñu amaan mbégte bu baax a baax ci leeral yi waaye mu mel ne euh, bisub xasaayit bi ren mooy troisième année ñu di ko def fii ci kër Serigne Saliou Mbacke di ko ànd ak toujours waa jàmbaari ko mu mel ne waa jàmbaari xelkom dañoo nekk daara boo xam ne reconnaître nañ ko wala agsi na fenn fi wala tuur bi yaakaar naa ne rëy na lool léegi nag jëwrin comme yaay jëwrinu daara bi dañ lay laaj lan moo ko waral ak waa jàmbaari xelkom nu ñuy doxee ba liggéey bu ñëw rek ak nu mu diis diis ñoom lañ koy dénk. waaw soxna Ndeye Euh, maa ngi santaat bu baax tey nuyuwaat waa jàmbaari Xelcom gépp rawatina Serigne Khadim Fall barabub Serigne Saliou Mbacké mi nga xam ne keroog bi nga xam ne Serigne bi jóge na fi ci saayir Serigne bi daan ne mbaa da ngeen ma wéttali boobaak léegi mu sampum njàngum xasaayit mi ci barab bi ak njàngum alxuraan mi waaye wëlbatiku àndaat ak ñun ci biir jàmbaari Xelcom nekk ci kanam nag joxin joxin bu rafet kon ñi ngi sant léegi nag li nga wax ci jàmbaari Xelcom mooy li nga xam ne Xelcom ji bu mu sasoo woon Serigne Cheikh daan ne faral naa leen su ma leen feree da ngeen dem wuti su ngeen wutee da ngeen am su ngeen amee da ngeen bajantu jug leen ngeen bajantu xel kom nekkoon ci waañu mag wi daan toggal mboolem dal boo xam ne yaa ngi ñëw ci eh, biir xel kom ñu lay jox sa mën a ngay dem di ci baate jàmbaari xel kom di dem di jur di jur ba dal yëpp am seen bopp ñoom nag ñu yëkkati waat seen kattan ak seen man-man daan ne fës yéene nañ saa buñ dematee xel kom la nga xam ne dal bu mag bi ñoo koy saytu ak ñoo koy def jàmbaari xel kom jël loolu ràng ko seen bopp di ko jaayante di ko dox de kenn fekku leen ci jàmbaar xel kom nekk na loo xam ne mboolem ku nekk biir kër Serigne Saliou rencontre nga seen liggéey nangu it nga seen liggéey waaye it bàyyi nga xel jàmbaari xel kom ndax jàmbaari xel kom lenn mooy seen liggéey muy ndigalu Serigne Saliou Mbacké ji biir këram yi baru bu Serigne Saliou gàmm gi layatu xadar ak ndigal yi nga xam ne mi ngi ñuy bett Serigne waa di ko woote te saa bu ko wootee ñu doxee ko kem seen kattan ni leen ko Serigne Touba mën a lee ndax tey kat waral na ko soxna Mbaye bis bii ñu wootee nga xam ne mun Mountakha moo ko wootee woote bisub xasaayit bërki démb day bi ñu toogee ci kees gi yaakaar naa ne lañ ci dajee ci ay koppar mëntoon a jënd benn saako ceeb waaye bi ñu toogee xale yi di ay ndaw di ay borom pëseef ñi nga xam ne Serigne Saliou rek mooy daw seen yaram kenn ku nekk jug jaayante yëkkati see xéewal def ci ba nga xam ne ne bii kat ñi rey nañu nag ba taal ma nañu bari yi loolu ku dul ku amul pëseef doo ko def jàmbaari xel comme ndaw ñi nekk nañ ci kattan seen kattan duñ ko bàyyi mukk seen man-man duñ ko bàyyi mukk seen i xéewal duñ ko bàyyi mukk ndax section yaa ngi fi buñ ne Guédé am na fi buñ ne Xayra 2 am na fi buñ ne Mbacké am na fi buñ ne Dakar am na fi waaye ak yeneen banqaas yi nga xam ne tey boo taxawoon di laaj jàmbaari Xelkom dañuy am mbégte ci liggéey bi te Serigne Touba Mbacké tax noonu la jàmbaari Xelkom taxawee Soxna Ndeye kon nag ñoo ngi amaan mbégte bu baax a baax ginnaaw bu ñu xamee daayira ji nu muy doxee ak liggéey bi nu muy doxee léegi jëwrin daa am lenn loo xam ne bëggoon nañ koo leeral. muy ci wàllum liggéey bi. Mm. ci daara ji. Mm. organisation bi. Mm. parce que biñ ñëwee ci waañ bi ba léegi. xool nañ ne cuisine dafa organisé. café tamit de même. accueil de même. culturel de même. Euh, waa site bi de même. waa zéro degré tamit de même mm. te loolu yëpp jàpp naa ne su fekkul woon ne ña ca kaw ñoom ñoo tegu ca axe mm. loolu yëpp du am mm. kon nag ñoo ngi leen di santaat bu baax a baax di sant suñu jëwriñ ji nga xam ne moom la della mi sëñ Saliou Fall Ba soxna Ndeye euh, laaj daa daa neex lool ci ñun mm-hmm. euh, ndax organisation bi daan naan yéen yéen a ci jàpp ba lépp dox mm-hmm. ndax organisation jàmbaari Xelcom yomb na yombul ndax kër Serigne Saliou ñëpp a ciy ñëw mm-hmm. te adduna bépp lañ koy defal te ñun xooluñ suñu bopp waaye boo gisee man damaa fàtte sax daara ji nga xam ne dañoo ànd ak ñoom liggéey bi ñuy ay jàmbaar muy ànd jëfal Serigne Saliou euh, Seyna Aliou Sarr di jàmbaar loolu ànd ak ñoom ak Baye Galas ak ak mboolem ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci liggéey bi ñuy ay jàmbaar di nga xam ne seen kattan ak seen man-man fekkewu ko loolu bu jàllee organisation bi lii Serigne Mbeke jàngale ndax boo xoolee wax ñu nii ñu ko organisé jiital si ki ñuy wax may Baye Konte ak Khadim ñu àndee ko ak mbokki taalibe bi ak jëwriñ mm-hmm. waaye li nga xam ne mooy Euhlou Café ñu jiital si Bamba Fall ak soxna Ndeye Galas mii communication ñu jiital si Bamba Fall ak soxna Ndeye Galas mi taxaw di wax ak ñun bu fekkee Maawu Rahmati Serigne Saliou Maawu Rahmati mi toog yor Khelcom 21 TV moom ñu dénk ko bu fekkee li nga xamee ni mooy culturel ñu jox ko Serigne Khadim Fall baru bu Serigne Sadio Mbacké bu fekkee li nga xam ne waa Prononce la ñu ko Mor Ngom ak ñi mu àndal liggéey bi yaakaar naa ne liggéey bi ni ñu ko organisé Serigne bi moo ko organisé boppam ndax tey de ku fi ñëw Serigne Abdoulaye mi nga xam ne moo yor social bi jox na la nga ndékki ñu yor kafe gi jox nañ la café ñu yoroon ndox mu sedd yóbbul nañ la ndox mu sedd mi dara manqué wul bu loolu jàllee ñuy santaat bu baax bàyyi baar coordinateur Serigne Saliou ak ñi àndal ndax ay jàmbaar lañ tey ay borom Pastef lañ te bi rek moo leen ñor ole oh, nag bu ko sëriñ bi defee soxna nday liggéey bi dañ ci woo ñëpp ndax sëriñ Saliou daa waxoon ne lu ma fekk lu yàlla yaatal ma xatal ko ànd na ma ak ñëpp léegi nag bu sëriñ Saliou yaatalee woo ñu ci liggéeyam bi kon ñun dañ cee war a woo adduna sëriñ Saliou a ngi nii këram gaa ngi nii ñun nag suñuy bànqaas ubbeeku na kenn koo xam ne yaa ngi dégg suñuy kaddu wala ngay gis image yi ñu ngi lay woo ci liggéey bii nga xam ne mooy jàmbaari Xelcom jàmbaari xel kom nag waañu la bu mag bi rek ñu ànd ànd ak ànd jëfal Serigne Saliou Mbacké ak section yi nga xam ne ñoo ne ci biir liggéey bi loolee nag su amee bànqaas yaa ngi fi numéro téléphone yaa ngi fi ku woote si 76 321 85 88 dañ ñu jot wala 77 221 80 42 221 80 42 da nga mën a tabbi ci liggéey bi ndax liggéey bi day wax dëgg yàlla jëf luñ ko kuddul Serigne Saliou ndax jëf ji de soxna Ndeye du ak kees mm-hmm. waaye mbokk taalibe yi ñoo wëq seen i poos jëfal ko Serigne Touba kon nag nangu gii ko Serigne Touba nangu seen i xol yàlla na leen ko Serigne Touba fulal ba li si waaye def bu ëllëgee Serigne Touba àggale ko si barkeb Serigne Saliou Mbacké moom day sant nañ bu baax mbokki taalibe yëpp am nañ ak mbégte ci ñoom ndax démb dey tiitoon nañ bi ñu toogee ci kees gi waaye tey jii de siggil nañ ne Serigne Saliou rek mooy jëfal boppam te lu waaye jëf Serigne bi nangu ko te du jaawale jëf kenn ak morom ja kon soxna Ndeye liggéey bi daal mi ngi noonu kon ñu ngi ci woo mbokki taalibe yëpp ñu soññiwaat gaa ñi nag Xelcom jaa ngi ñëw gaa ñi Xelcom jaa ngi ñëw Xelcom nag mooy mooy mooy mooy mooy bis bu mag bi mooy ndeyi bisi kon nag gaa ñi jëf jàngoog ñu ci woo mbokki taalibe yëpp ñu ci woo mboolem ku nekk ci réew mi ak bitim réew waaw numéro téléphone yi ñu joxe muy 77 221 80 42 ku ci dugg da nga ñu jot buñ la jotee danañ la jox ñi nga xam ne ñoo yor carte membre yi daañ la mën a tabal ci liggéey bi ñu ànd liggéey Serigne Saliou Mbacké kër gi rek la ñu am kër gi rek la ñu xam waaye ñoo ngi ñaanal sëriñ si Ahmadou Mbacké ak njabootam waaye sëriñ Saliou Mbacké ak njabootam suñu borom yàggal leen fi loolu te wér ci barkeb sëriñ Saliou soxna Ndeye sant nañ bu baax sant nañ leen yéen ñii toog taxaw di yor micro bi yor café gi yor organisation bi di jàmbaar dem ba tey ngeen fanaan bi di liggéey liggéey bu mu rafet lool jëriñ maam bu sa yi moom it jàmbaar lool rëngeemul benn yoon wax dëgg yàlla waaye maam Thierno mais tamit camarade bi mu ñëw ànd ak ñun kon dañu koy ñaanal yàlla na nekk ay télé télé ci barke sëriñ sa sëriñ Saliou sëriñ Saliou maaw rahmati di jàmbaar lool daara ji mosu ñoo woote ba mu des ginnaaw kon sëriñ Saliou maaw ñu ngi lay ñaanal yàlla nga dajeeg tawfeexi sëriñ bi ci barke sëriñ Saliou Mbacké waaye di ñaanal Baye Garas Konté ak mboolem ñu ma àndal ci waañ bi sëriñ Cheikhouna Ndiaye ak wàllu Guèye ñoom ñëpp rek ndax su ma limee damay juum waaye dinaa fàtte waaye daal maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp maa ngi ñaan yàlla nañ dajeeg tawfeexi sëriñ bi ak ndimbalam ci barke sëriñ Saliou Mbacké mhm. jërë ngeen jëf ndeysaan mu mel ne ñun waa sit bi ñu ñëwee fii ci waañ bu mag bi kër Sëñ Saliou rusuñu gàcce ngaalaama lépp jaar na yoon te lii yëpp lu ko waral nangoo jaayante nangoo nangu nangoo dégg ndigal kon nag jëriñ sañ Saliou ñoo ngi lay sant di ñaan nga santal ñu mbokki taalibe yëpp nga xam ne ñoom leen fekk fii ci kër sëñ saaliw di leen xamal ñun waa site bi bég nañu kontaan nañu gis nañu liggéey bi jaar na yoon te jëfe nañu ndigalu sëñ Mountakha Mbacké kon wasalaam ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mbokki téléspectateurs yi